ne du ngeen deg wax na len ne ñaari koy mo am dama len di répéter dama len di fatali koy bo la moy sidit am koy bo xamne deret la moy ndox amna koy bo xamne borom su dalé su dalul da ngay gis mu reuy mais bu dalé du yok lu bari nam yemoon daanaka noonu lay yem loolu am na ci kooy am kooy boo xam ne mën nga ko gis mu mel ni dara nekkul fu waaye bu koddalee ba deret di ñëw mën na tukkal àddina loolu gu yàlla laay wax ni mu bindee góor waaye ñaari kooy yépp nag muy bu deret ak bu sidit boo duggee ci géej gi ba génn ndoxam xorom mu sedd mi dina delloowaat sa koy bi ba mu des dix pour cent ay tere tere lay def bopp bi rekk moo dul dellu mais léppay dellu muy benn bu fekkee ne nag danga laalante ba daanu ba daanuwaat yow sa bopp yow miy góor ak yow jigéen mi xam góor bul tontu de gëmmal rek nga déglu li may wax koy ba dana delu delu ba melni ni koy amu fi te koy bobu delu ba mëno ko gis mo doon jambu sa bi moom nga doon jambé bajo ba borom di yuxu wa nak su fekkee xamu leen dara mom xamu dara wa li yag na len ko motax mané man kado la ci société sénégambie te ëlëk lañuy comprendre mais du day lu ngeen di wara lu len wara waxna ko jall na ko paré na ko man ci lenen benen ba ca des dafa am allegations wax yo xamné su xasse ba da dangay dal nga tay boko justifier tay manam tay bu pression ñewé xarama dossier touti maanaam dafa am wax yoo xam ne bu daanoo boo ko justifié tey dina la gaañ ëllëg boo ko leeralee dalay suuxal kon loo war a def dangay aju nan tey foog ngeen tey tey Cheikh Ahmed Cissé mu ngi toog mu ngi sëgg ci téléphone am yaramam bu set néeg bu kilim xam nga cuusu neex a nàmp toog nii jàpp njàmbura nit ñëw na la noo yow amoo koy sa koy bi dafa tuuti dafa ndaw su la ko waxee soo justifié dafa am lu muy gañe boo ko leeralee dafa am lu muy xam léegi da ngay noppi da ngay noppi da ngay aju loolu parce que bu dee góor moo ko wax malhonnêteté mu ngi ci wax ji moom xam na ne bu kattantee ba daanu dafay gën a gudd wala day tuuti moom xam na ci dara moom góor gi wax loolu xam na ci dara bu baax a baax léegi yàlla defal la sutura nit di la filmer te yëgoo ko nga mun a toogee noo xam ne maanaam coow li mooy gën a vidéo bi gis nga ko le motif le mais ku xool dana xay mu lan la léegi nag buñ la poussé buñ la poussé ba yow nga leeral su booba dina xam lu ñu warta xam soo justifié di nga daanu ci pièce boo warta daanu dangay aju loolu nanditema mel ni dégguloo ko l'essentiel kooy moom bu tuutee ak bu rëyee ci bajo bi mu war a dugg rek la concerné bajo boobu bu bëggee àdduna bi yëpp ne danga nga rëy la te rëy la woo ñëpp ne da nga tuuti la te tuuti la sa sa it's not important amul solo léegi nag loolu du àdduna